li ñu njëkk a waxtaane moo di euh, sa Top déclaration politique générale bu euh, le premier ministre Amadou Ba bi am démb foofee ci assemblée nationale ma bëggoon am lan mooy sa appréciation par rapport ak euh, déroulement bi démb foofee nga xam te mu nekk ci assemblée nationale. jërëjëf dara déclaration politique générale bu Amadou Ba comme ni ma ko mës di waxee depuis que ce régime et ce qu'il est. Mm-hmm. Amadou Ba xam nañu ko c'est un haut cadre de l'administration. Mm-hmm. boo xamante ne def na impôt et domaine lu yàgg ba nekk fa moom directeur des impôts et domaines mhm. jóge fa nekk ministre de l'économie et des finance mhm. jóge ministère de l'économie et des finances dem nekk ministre des affaires étrangères mhm. jóge ci loolu tey jii nii mu nekk premier ministre donc de facto Mm-hmm. buy def sa déclaration dafa war a nekk quelque chose boo xamante ne dafa am contenu mm-hmm. dafa war a nekk chose boo xamante ne techniquement lu ñu mën tënk la lu ñu xamante ne mënees na cee wax ne kat lii mm-hmm. amal na njariñ Sénégalais yi comprendre nañ leer na xam nañ fa ñu jëm mais moom Amadou Ba dafa bokk ci régime boo xamante ne dont il est comptable lui-même ci régime boo xamante seen tëli dañ ko wane seen vision gàtt gim gàtt ñëpp gis ko mu am fu mu yem ba tax na fa ñu jëm ñoom on est aujourd'hui Euh, décembre 2022 mhm. élection présidentielle seen nguur ñoom ci Macky Sall day jeex en février 2024 mhm. ñoo ngi toll fii ak foofu c'est à treize voire quatorze mois boo xamante ne moo leen dese ci réew mi ñoom ngir ñu dem beneen régime wala ñëw mhm. diggante bii ak boobu amul dara loo xamante ne mënees na ko fee def ñoom loo xamante ne mën na changer quotidien wu sénégalais yi parce que quelle que soit la proposition qu'ils auront à faire comme dañ ko président Ousmane Sonko mas di wax suñu différence ak ñoom mooy ñoom leur démarche est conjoncturelle seen vision c'est une vision conjoncturelle ñun suñu vision c'est une vision structurelle mooy lan mhm. mooy ñun dañoo jàpp ne problème mu Sénégal nekkul tey dafay taw mbënn am rek nga ne xaaral ma régler problème bi à l'immédiat sans sóoraale suba fa mu war a demee. Hmm. ñoom noonu la ñuy doxee boo seetloo saa yu dara xewee ci réew mi ñu ne dañuy jóg régler ko faw catastrophe am wala dara am wala métit am ngir ñu mën a régler ne dañuy jàpp ne dañuy régler benn affaire te boo xoolee ba ci biir. ni ñu koy réglé fan lay mujj détournement d' argent gis nga rapport cour des comptes yi nga xamante génn ci Covid 19 bi te le président Ousmane Sonko annoncé woon ne nañu xool xaalis bi nga xamante ñoo ko jagleel Covid 19 bi fu muy dugg ñu topp ko bu baax ba lépp tegu ci yoon. Mhm. xam na sa régime xam na ces gens là xam na ne jubuñu tey jii nii cour des comptes jox na ko dëgg parce que alerte woon na malheureusement tey jii nii gis nañ di blangu nit si tu es médiocre bu dee aayuloo mhm. tu ne t'entoures que de personnes médiocres parce que bëggoo ku la ëpp xam-xam jàpp naa ne régime bi foofu la toll mhm. ñun par contre parallèlement lan la ñuy proposer une démarche et vision structurelle maanaam loo xamante ne dafa am une vision à moyen terme mhm. à court terme d'abord à moyen terme e à long terme maanaam nga ne fii ak un an la fan laa bëgg réew mi toll fii laa ko yóbbu lii mooy sama perception ci wàllum économie li mooy plan bi nga xamante ne moom mooy teg moom mooy sama économique nga par exemple fii ak deux ans kat IDH bu sénégalais bi indice de développement humain mooy IDH xamante ne mooy indicateur bi gën a baax bi nga xamante ne moom la ñuy mesurer nit ki ba xam mu ngi développé nit IDH boobu noonu nga ne kat bu sénégalais bi bëgg naa ko yóbbu de d'un point A à un point B IDH boobu bokkul ak croissance bi nga xamante ne ñoom moom la ñuy ndamoo parce que IDH boobu li muy may doomu aadama bi ku ci nekk ci benn réew ñu xam moom croissance am maanaam développement am ci wàllum pauvreté wala ci wàllum koom fan la toll ba ñu xam ko daanekat ah ñii kat seen koom mi ngi jëm kam ñu ngi jëm kanam loolu mooy li nga xamante ne mooy ñun suñu gis-gis ci wàllum politique c'est-à-dire ñu ne dans deux ans. IDH bi fii lay toll dans trois ans IDH bi fii lay toll lan moo koy lu tax muy toll foofu hmm. ñu ne ci wàllum mbay dinañ def sàngam lii mooy le plan annuel ou bien lii mooy le plan Euh, biannuel lii mooy le plan quinquennal nga dem ci wàllum euh, li nga xamante moom mooy télécommunication ñu wax la loolu nga dem ci wàllum pêche ñu wax la loolu mhm. wàllu woo dem ci ressources humaines sur la formation des ressources humaines mhm. wàllu woo dem ci wàllum énergie ci wàllum pétrole ci wàllum gaz ñu ne fii la ñu toll lii mooy le plan lii la topp fii la ko jëmee mhm. mu am aussi une gestion très rigoureuse de tous ces plans là bañ mën koo réaliser léegi nag en tant que premier ministre c'est un discours creux boo xamante ne amul fond amul contenu amul lu mën a yokkal Sénégal yi d'ailleurs yow tey jii nii leer na ma ne boo fàttalikoo bu baax en tant que journaliste foofu lay daanale mhm. la xewoon li xew tey ak ñoom li ñu tenir comme discours bi nga xamante ne moom la ñuy def seen budget deux mille vingt trois bi lii mësoon nga ko gis kañ nga ko gisoon bi nga xamante ne ñoo ngi dugg deux mille dix neuf lu ñu waxoon. ca at ba nga xamante ne moom lañ jëm ci wàllum élection élection c'est un budget social mhm. dañuy dimbali sénégalais yi mhm. dañ leen di jàppale te mhm. xam nañ ne Sénégal daa metti en d'autres termes c'est une façon de dire que ñun dañoo échoué ñun réussir ñu bu ñokkee bourse familiale yi parce que bourse familiale ñan lañ koy jox ay dara ñu néew doole ñi ñi amul mhm. boo demee ba ne yokku nga ñi ngay jox bourse familiale yi c'est une façon de dire que Sénégal yokku nañu ci lim bi ñu amoo ci ñi nga xamante ne dañoo néew doole lim bi nga xamante ne amoon nañ ko ci ñu pauvre raison pour laquelle moom Amadou Ba sa déclaration de politique générale est à l'image de leur gouvernance y compris moom y compris son patron politique di Macky Sall creuse et sans fondement bu dëgër alors déglu naa la da def benn comparaison entre yow sa vision wala seen vision kuréel ak vision bi nga xam te moom moo nekk tey parti au pouvoir mhm. wala gouvernement bi mais est-ce que tey yombul tamit toog rek nii di critiquer pour critiquer parce que bu ñu déggee le premier ministre quand même euh, ñëw na ci ay ponk yu nga xam te nii jàpp nañ ni lu amam solo ci biir réew mi mhm. buñ gisee li nga xam moom moo nekk wàllum inondation yi euh, jëm ci wàllum denrée yi jëm ci lépp lu nga xam te nii jëm na ci euh, wàllum emploi ndaw ñi et am na ñu bëri ñu ko apprécier euh, contrairement ak yow mi nga xam te nii da nga toog bi nga waxee ba ni nga daanale ay critique rek rek rek kese nga daal di joxe ci li nga xam moom moo nekk déclaration de politique générale yow mii boroom kër nga kii di ma seetaan nii am na ñoo xamante ne borom kër lañ ay soutien de famille lañ hmm. nañu xool ñoom seen poche liñ ciy jot ak li nga xamante ne fa la denrée yi toll jigéen ñi nga xamante ne ñooy togg tey ñi may seetaan ñoom demal nga laaj leen yow xam nga ci dara njëg yi wàññi nañ leen nga dem njëg yi wàññi nañ leen cest à aussi waa maa ngi ci ñëw foofu sax c'est c'est une occasion pour wàññi ban ban wàññi ak lu fu wàññi toll lan lañ wàññi boo xamante ne lii juróom lañ ci wàññi lii loo xamante ne lañ ci wàññi dama ci posé question bu très simple. Mhm. kilo suukar ki nga xamante ne dafa yor famille tey jii nii. Mhm. doon jënd ci weer wi lu war a toll ci fukki kilo suukar. Mhm. kooku juróom bi ñu ko wàññil xam nga ñaata la koy dikkee. ñaata lañ wàññi ci ci deux cent cinquante franc kese. juróomi dërëm da koo xeeb fukki dërëm boobu deux koo xeeb weesu na xeeb te même ma ñëw te loolu yëpp nag ci wàllum suukar googu lii kat li waral mu nekk ci situation bi c'est parce que guerre baa am Ukraine la muy lay boo xamante ni teguwul fenn nag te dinaa la wax lan moo tax teguwul fenn fan la ñuy béyee suukar ci réew mi. Richard Toll. dañ koy bay suñu réew mi. mais doyul. léegi donc ñoom dès lors que ñu reconnaître ne doyul depuis lors ban politique la ñu def. pour ñu am autonomie ci wàllum suukar moo tax fi mu ne nii. Mhm. gis nga même seen wàññi bi ñuy def day confirmer en réalité li ma la doon wax tout à l'heure ne conjoncturel c'est-à-dire bu jafe-jafe amee ñu ne nañ taqale taf yëngal mhm. la ne woon Sénégal ñun dinañ am autosuffisance en riz parce que ceeb la ñuy lekk moom la ñuy consommer 2017 la ko waxoon. Mhm. on est en 2022 cinq ans après. amuñu autosuffisance en riz joxul explication sénégalais pourquoi lu tax amuñu ko. ci yi ngay wax naan ci wàllum inondation mhm. yaa xayti yow inondation Sénégal war nañ koo waxati fi ñu toll nii ci réussite buñ ci am ñoom cette année ci nga xamante ne sax taw na fi ba ay nit dee en pleine inondation ici à Dakar ñu nekk seen oto ñu yàq ci seen oto loolu nekkul sax. mais mais mais partout il a des inondations quand même. Euh, euh, euh, partout dans le monde dañ fay gis li nga xam moom moo nekk inondation donc nekkul loo xamante ne c'est un cas spécifique pour le Sénégal kese. bul ñaan yàlla. Mhm. au regard de la situation actuelle bi nga xamante ne am na. Mhm. ci Dakar ci wàllu gestion inondation. Mhm. lay taw ci dëkk yooyu ba ñuy inondation